Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très chers amis téléspectateurs de le Houda, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes ensemble aujourd'hui à notre 27e séance. Mais surtout pour changer le nom de notre émission que nous avons de commun accord avec euh, l'autorité décidé d'appeler Kalimatul Haq, Kadduk deg » ou la parole de vérité, pour mieux coller à, au Coran, aux objectifs de cette séance. Nous sommes donc ensemble en cette 27e séance autour de la sourate Al-Fil, l'éléphant qui est la 19e révélation reçue par le prophète Muhammad paix et salut sur lui. Mais dans le livre, elle est à la 105e place. Boki, yi sante subhanahu wa taala Fasiena Ande, chisunyo nyar fukel ñaar nyari ak Chi ñaari ci ndaje huda te fas yéene li ko tàmbalee ci jataay bii tudde kalimatul xaq muy kàddu dëgg gi tukkee ci borom bi subhanahu wa taala bu dee ci tubaab ñu ne la parole de vérité ngir gën a mën a jege li nga xam ni mooy hadaf bi waaye gën a mën a dëppoo ak li nga xam ni moo tax alquran di dox bon ñu ngi tey saar bii di suratul fiil ñu ne saar bu ñu tuddee ñay wi daañu xam lu tax bii mooy fukk ak juróom ñeenteelu saar boo xam ne yonent bi alayhi salaam jot naka booba ma ngi màkk waaye fi mu ne nañu ko fi def ci téere bii di alquran ñu téye ko ci suñu loxo mooy téeméer ak juróomeelu place bi la sourate al fil raconte des faits qui se sont déroulées l'année où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est né. Il s'agit de Zoulouas, le dernier des rois de Homer, qui exigea des chrétiens d'apostasier leur foi pour revenir au polythéisme. Ces derniers refusèrent. Zoulouas décida alors de les brûler vifs. Et tenez-vous bien, en un seul jour, il a brûlé plus de 20 000 chrétiens dans une fosse en flamme. D'où le nom de Ashabul Ukhdud, les gens de la fosse. ok xew-xew yi nga xam ne moom la nu suuratul fiil di nettali mu ngi am at bi yonent bi sallallahu alayhi wa ali juddoo sababam nag mooy buur bu ñuy wax sunuwaas nekkoon ci yaman nga xam ni mooy ki mujj ci buuru xumayr dafa jekk bi yàgg rek daal ni catholique yi nekkoon ci eh, réewam yëpp ñi yoon yont yàlla isa yëpp nañu génn ci diineg ci yàlla isa te dellu si ci seen diiney maam ci ceddo gaa yi lànk ba tëdd ci naaj bi mu ne comme noonu la képp ku ci ni day sax ci diineem kooku dama koy rey xam nga nu mu def dafa gas pax ñu taal ci safara képp ku ñu ni weddil nga ni yaa bañ ñu jël sànni ci biir safara nettali nañ ni ci benn bis bu njëkk bi rekk rey na ñaar fukki junni jullit ñoo xam ne ñu ngi toppoon yont yàlla isa ci pax moo xam ni safara wuy berax beraxi la moo tax daa dégg mu ni ashaabul uxduudi ci biir seul Sahlaban puis s'échapper et il se réfugia auprès de César César était un roi chrétien puisque César est loin il sollicita son homologue le Négus d'Égypte d'Éthiopie qui était lui aussi chrétien pour se venger venger c'est leurs coreligionnaires contre Zuluas. mbokk yi bi lii amee benn nit rek moo ci rëcc daw su suuf daw su ma mu daw xam na ni fële ci Rome César ma fa nekk catholique la mu daw foofu bi mu ko ko nettalee César ni kii il faut ñu dal ci kaw waaye moom sore na mu daal di jokkoo ak nattangoom bi nekk ci Éthiopie muy muy Najaasi bi ñu jàppee lañuy ñuy jàpp ñu ni bon ayu Le Najassi, le Négus, lui envoya une armée puissante commandée par Abraha ibn Sabah et Arbat. Les Yémenites furent vaincus, je résume. Zounoua se noya en mer en voulant s'échapper. xoolal Nona Najasi, d'al di koy yónnee armée bu rëy di song suunuwaas armée bobu ña jité won moy ñaari généraux yi di Abraha ak Arbaad ñoña biñu gagné gañee dëkk ba suunuwaas nak di daw ni dafa bëgg rëcc waye ci dex ga ci géej la les deux généraux se disputèrent le commandement du pays car le pouvoir ne se partage pas nous a appris le verset 22 sourate Anbiya pour éviter le combat entre leurs soldats, des soldats d'une même armée, ils décidèrent de s'affronter en duel. Et le vainqueur prendra le commandement. Et ce fut Abraha qui remporta le duel. bokk ñaari commandant yi ñaari général yi xëccoo nguur gi xam nga nguur kenn du ko bokk loolu la ñu suratul anbiya di jàngal ca laay ñaar fukk ak ñaar ñu ni waaw léegi bu nu xeexee soldaar si ànd ak kii ñi ànd kee mais ay ñu bokk réew bokk seen lépp ñoo wëlbatiku di xeex ci seen biir ngir loola bañ am kaay yow Abraha ak man mii di arbaat nu xeex ñu ñaar ku ci gaña sa morom nga jël kilifteef gi Abraha yàlla dogal mu daan gaña kii di arbaat jël bakkan mais le Négus fut mécontent de la mort d'Arbat Et pour le calmer, Abraham lui promit de lui construire une église qui n'a pas son pareil, de détourner les pèlerins de Makkah pour que le pèlerinage se fasse désormais au sanctuaire du Négus. général bi gën a mag ci réew mi Abraha bi mu yëgee loolu ngir dalal kii di Najashi mu ne que danaa la tabaxal église boo xam ne amul ci kaw suuf du ma yem ci loolu waaye gis nga aj gi ñuy aj ca Makka dana wëlbati nit ñi dootuñu aji Makka ñuy ñëw di aj ci sa euh, église bi quand les arab arabes apprirent Leur colère fut insoutenable. Et des Arabes entrèrent nuitamment dans le temple que Abraha est en train de construire, déféquèrent dedans et souillèrent les mules du temple de matière fécale. Abraha jura alors de détruire la Kaaba. ok Il nga a Abraha nisir fan la yem ñoom itam ñu ne pat bàyyi ba guddi benn délégation ñëw ci église u Abrahaba def fa tuur fa dugub jël mur yëpp diw ko ay sobe daal di daw Abraha bi mu yégee ne arab yee def lii mu ne léegi nag dootuma yem sax ci wëlbati gaañi ñu ñëw di aj bàyyi makka waaye damay dem toj kaaba ga kaaba ga lay toji Il marcha donc sur Makka. sa puissante armée rasait tout sur son passage. Les tribus étaient impuissantes. Et à chaque étape, les gens se cachèrent dans les montagnes jusqu'à ce qu'Abraha arriva au seuil de Makka Abraha di jëm lañu bayoon sàq ya mu jël mook soldaaram di dem giir yi naam nanguwuñu li muy def waaye attanuñu xeex ak Abraham lu ñu ko dara réew mu mu ci yàgg rek ñoom dañuy daw làqu ci montagne mu def fa la ka neex continuer ba ni mu yegsee nag ci mag il fit la même chose Abdul Muttalib se rendit auprès de lui pour lui demander de lui rendre ses chameaux qu'il a capturés. Abraham lui dit, mais tu m'as vraiment surpris. Tu as perdu mon estime. Tu me parles de chameaux alors que je m'apprête à détruire le temple de tes pères, le temple de ton culte, de ton Dieu. Il lui dit, les chameaux m'appartiennent. Quant au temple, son, il a un propriétaire et son propriétaire le défendra s'il le veut. Sûr de son fait, Abraham lui dit, personne, même son propriétaire, ne pourra le sauver de moi. On verra, lui dit Abdul Muttalib. Il prit ses chameaux et partit. bokki Abraham Diap jur Abdul Mutalib mu jëlaale ci ay gëleemam mu dal Abraham bi mu ñëwé ñun nu yonté jamm sonté mu ne ka luy sa tank goor gi mu ne ka samay gëlem nga japp té dama bëggoon nga jox ma Abraha ni ka man bima la séné ngay ñëw dama la wék respecté la mais fi mu nak gis naan yow amo benn fulla amo benn fayda yow ma ñëw di toj ci sa jaamu kayu maam sa kayu yalla fi fi la sa yalla sant amo lo may wax lu ray gëlem dal di kay jox gëlem abdul Muttalib ni ko man gëleem yi kaaba gi amna na borom momitam dana sam yefam abraha ni ko ken manul dox sama diggante ak toj kaaba gi mu ka ko mom anta wazak loolu luñuy sétat la l'armée se mit en branle avec à sa tête un éléphant caché au sommet des montagnes les Mecquois virent l'éléphant refuser de charger la Kaaba les soldats finirent par l'abandonner et continuèrent à pied pour attaquer la Kaaba et la détruire ok bi daal di jóg nag ñu nga jëm ca Kaaba ga ñay wee jiitu de ñayu xare wi waaye ñay wi dafa dem ba yàgg gaañi waa Màkka yi nekkoon ci montagne bi gis ñay wi mu daal di ni groupe lànk ni dematul gaa yi def lu ne ñay wi moom dematul gaa daal di koy fay bàyyi continuer seeni tànk daw jëm ci Kaaba gi ni ñu ngi kayit toj mais écoutons Suratul Fil, nous raconter la scène. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur traita l'expédition de l'éléphant Comment ton Seigneur fit échouer leur plan mbokk yi nañu al-qur'an mu nettalil le ko Et Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah et Rahman ci turu yàlla yàlla moy borom yërmande yu mat yi yàlla ki jëflante ak lépp lu mu bind ci yërmande mu wax ak man wax ak yow mu ne alam tara yow mi may déglu ndax giso kayfa faala rabbuka bi ashabil fil nan la sa borom jëflante ak gaña yoron ñey wa alam yajal kaydahum fi tadlil xana giso ni mu soyele sen pexe yépp C'est un plan Yep. il envoya des bandes d'oiseaux des oiseaux regarde combien l'oiseau est faible mais des oiseaux qui les bombardèrent de cailloux d'argile on pourrait dire aujourd'hui des missiles intelligents parce que chaque caillou portait le nom de sa cible ces cailloux les broyèrent comme de l'herbe mâchée par un ruminant yàlla mu ni wa arsala alayhim yàlla yebal ci seen kaw nga ne xëy na armée bu rëy yàlla mu ni tayran ababil ndiiru picc ndiiru picc rekk laleen leen yebal tarmihim bi hijaratin min sijil picc yooyu kenn ku ne yaa ngi yor ñetti xeer benn ci sa saal ñaari ci say tànk xeer wu ne ñu nga ca bind ki mu war dal ci kawam rey ka bu doon tey nga ni picc bu nekk a ngi yor ñetti misilam ba ñu leen ko sànnee mu ne fa jaalahum ka asfin maakul dañu dal di moxoñoo comme ñax woowu nga xam ne xar bi yéey na ko bindi na ko ba mu mokk rumax amis téléspectateurs le jour de Pâques sunuy ngànnaay waaye maa ngi leen koy wax qad aadat xurmatuha al yawm ka xurmatiha bil ams mu ni li ko dale bisu tey na mu aromale woon kaaba gi araam googu dellu si waat na amul kenn koo xam ni gannaaw bis bi am nga sañ dugg fi ci gànnaay ak dugg fi ci yéene boo xam ne rek du jàmm mu ne fal yab fal yuballigh shahidu al-ghaib mu ne ñi fi teew nañu jottali ñi ko fekkul pourquoi maintenant se demande t Allah subhanahu wa ta'ala a châtié Abraham et depuis ne châtie plus ceux qui s'attaquent à la Kaaba, comme ceux qui ont pris des otages en 1975 dans la Kaaba. La réponse est simple. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas de croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que les mécréants défendent son temple. Il l'a dit dans le verset 51 surat Al-Kahf. Je ne ma fais pas aider par ceux qui égarent les égarés qui égarent leur semblable ki nga xam ni mooy yéeféer yi ñoom ñu taxaw défendre euh, kaabam wax na ko suratul kahf mu ne wa ma kuntu muttaxisal mudillina adudan man du ma jël ay saay-saay ay weddikatu yàlla ay réeralaate kat def leen ñoo xam ni ñoom lay jox sama liggéey ñu koy liggéey du ma leen employé mukk malgré tout Aujourd'hui encore, les, musulmans victimes d'agressions évoquent cette sourate pour attendre l'intervention des anges pour anéantir leurs agresseurs et les injustes. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera jamais.

et a établi la loi du secours sunnatu nasr et celle de l'affrontement sunnatu tadafu awil mudafaa mbokk yi loi boobu moo doon daw ci àdduna ba ci digg risaala yonti yàlla Moussa bi nga xamee ni génn na Égypte ak euh, ñi ko gëm Firawna dee ci géej gi ba ñu jàllee euh, Bahrul Kalsum rek loi bi dañ na Moussa lu mu amati daka xeex yàlla dal di tëral nag atteb li borom xam-xam yi ni sunnatu nasr pour jullit bi mooy xeex yàlla dimbali ka sunnatu tadaafu boo gisee kuy def lu bon faw ki bëgg lu baax jaamaarloog bu loolu amul benn malaaka du intervenir yàlla day toog rek di la xool yow ak moom ce qui veut dire que le secours wa ta'ala est désormais conditionné à l'effort des croyants d'affronter l'injustice, de faire face. Allah a établi un lien indéfectible entre le sunnatu nasr et la sunnatu tadafwa. Donc la loi du secours et la loi de la défense Boki, mënuñu ko am ludul jullit ñi ñoo taxaw jaamaarlo ñu jaamaarlo yàlla jàppale leen ñu ñu taxaw ni verset 4 surat Muhammad nous le dit si Allah le voulait il les vaincrait sans combat par l'inondation l'engloutissement un cri des anges une pluie de pierres de feu etc mais il veut vous éprouver les uns par les autres يلا وحنا لوابو بس بابو سورة محمد ولو يشاء الله لانتصر منهم بصوبون يلا موموي دوما غاني ولكن وايا نغلي يبلو بعدكم ببعض وايا دفا بغ لن تي تي لن تي ني ديف باخ جامار لو ني ديف لو بون désormais les partisans du bien devront affronter les injustes les malfaiteurs et s'ils le font Allah les assistera et ils mettront fin à l'injustice et au mal mbokk yi bon tey li am mooy faaw jullit ñi taxaw jaamarloog ñi nga xam ni ñoo bëgg def yàq ci kaw souf. Yalla dimbali leen ñu jële fi tooñ jële fi mbonteef bu ko deful du fi jëkk mukk sache amis téléspectateurs que la lutte entre le bien et le mal est multiforme pour l'islam elle est économique contre les fraudes, le vol, l'escroquerie, l'accaparement des deniers publics. Cette lutte est sociale contre les comportements déviants. Cette lutte est politique contre les excès de pouvoir, l'injustice des gouvernants et morale, comportement immoraux, impudique. Cette lutte est juridique. Il faut qu'on prenne les, tribunaux, qu'on juge le mal dana nekk ci wàllu koom ñiy sàcc di labaj dana nekk ci wàllu dundin bi ci suñu biir ñi nga xam ne dañu bëgg doxal ñaawteef ci suñu biir faw nit ñi taxaw ni du fi amee day nekk politique ñi nga xam ne yor nguur yi taxaw ni dañuy def njombe faw nit ñi taxaw ni leen du fi amee day nekk itam ci wàllu yoon dem ci tribunal yi dem ci police yi gendarmerie la meilleure des créatures nous dit celui qui voit un mal il met fin par les moyens à sa disposition ces moyens sont le boycott, la marche, la grève, les médias publics, privés, les réseaux sociaux, les journaux écrits et oraux Ok. Yonantibi bi alayhi salam, mu man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadi mu gis lu bon na fi dindi ci ni mané. waham, dafa boycott dafa laj def ay marche grève dem ci médias yi télévision et réseaux sociaux moyen bu nit pour lolu que nous soyons dans le camp du bien ou du mal nous répondrons de nos choix celui qui supporte une bonne cause recevra sa part de récompense celui qui supporte une mauvaise cause recevra sa part de punition Allah veille sur tout dit le verset 85 surat An-Nisa ban boor lañu bokk dañu dañu tànn taxaw ci sàppe ñi nga xam ni ñooy def lu baax di taxaw ci lu baax am wala dañu tànn taxaw ci sàppe ñu bon ñi jéem dugal mbon ci biir askan wi ak ci biir àdduna bu ci nit taxaw rek yàlla mu ngi taxaw di ko fuugle te lu mu ci def da koy fay wax na man yashfa shafaatan xasanatan yakun lahu nasibum minha képp koo xam ni kii Anda na ak ñu bax ñi ñuy taxaw pour lu baxam mu ne ñu ko jox walam ci payoru mbolo momu di def lu bax waye wa man yashfa shafaatan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha mu ne ku taxaw itam nak and ak ñu bon ñi di défendre lu bon li yalla dana la jox sa mbugal sa wal ci mbugal gi tew du mbugal ñu ca dess dara wa kana allahu ala kulli shay'in qita xam leen ni yalla mu ngi tok dara rëccu ko di fon di toppatoo lépp suratu nisa laaye juróom ñett fukk ak jur di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñi ci way dégg yi mën a topp boole ñi ci ñiy taxaw ci sàppe jullit allahu akbar walilahi alhamd wal minna ñu nekkoon fii ci kalimatul xaq ci seen télévision majeure RTS 1 di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla na nu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal defal nu mujj gu rafet laq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu buntu muur ak wërsëg bokki lu nu am yàlla nu am yàlla لونو نياكير يالنا نوم يالا بجائنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله السلام عليكم ورحمة الله